7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salam alaikum, chers internautes de Jarry Info TV. Voilà, je suis là, Mohamed Goloko, chroniqueur historien à Chari Info. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2022, une année remplie de bonheur, de joie, de prospérité, d'amour, de fraternité, mais surtout je souhaite à toute l'humanité une santé et une paix durable. Merci. Salam alaikum beaucoup internet Info, salam alaikum wa Sénégal, salam alaikum wa man la Amadou Mbodj responsable audiovisuel de Thiaroye Info maa leen di souhaiter une bonne et heureuse année 2022 di ñaan que 2022 nekk at bi nga xamante ni dafay gën at yu weesu 2022 nekk atum réussite Happy New Year, Happy New Year aux internautes de Tiaroy Info TV. Amina Paye, la DGA de Tiaroy Info TV vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite une santé de pierre, une réussite dans tous les projets et une longue vie. Assalamu alaikum mbokki Sénégal, ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Tidiane de Info. Au nom de toute l'équipe de Tiaroy Info, vous souhaite assalamualaikum waa internet képp koo xamante yaa ngi siiwul Thiaré info maa lay souhaité bonne heureuse année di wax bonne fête yal na leen defal jàmm defal leen tawfeex ay mucc ak def si réew mi. maa ngi leen nuyu ku nekk sant ngi tudd Malal Diallo Bitch responsable politique. fii ci village traditionnel bu Thiaroye commune bu Djiddah Thiaroye kaw euh, ginnaaw bi ma aussi suñu mbokk internet yi nga xam ne di aussi téléspectateur yu Thiaroye info leen ndokkeel ci li nga xam ne mooy at bu bees bi leen ci ñaanal yàlla aussi képp ku ci am projet yàlla yàlla barkeel sa projet ba nga wér ba ko ànd ak ses collaborateurs ak ses mu nekk deux mille vingt deux boo xam ne deux mille vingt deux jàmm la ak sutura ak xéewal donc euh, c'est Fatou Gueye madame Sall secrétaire générale euh, Celsi donc mon moi ñeu ak euh, avec ak wa Celsi Tiaroy yépp ak tamit suñu voisins Celsi Pikine souhaiter les meilleurs des vœux yu nga xamante ni dañuy ñaan sunu borom yàlla may ñu atum naataange. waaw ah, man euh, madame Dem, euh, la directrice de la famille et la protection des groupes vulnérables du ministère de la femme de la famille du genre et la protection des enfants maa ngi souhaiter une très bonne année à tout le Sénégal Go, jigéen mag ak ndaw yàlla nañu yàlla may atum jam lépp réalisé wu jërëjëf. Idrissa Gueye maay secrétaire général inspection d'académie Pikine Guédiawaye maa ngi profité ci occasion bi ci fin fin d'année bi nii. di souhaiter meilleurs di ñaan yàlla xale yi am wér jàngalekat yi parents d'élèves yi ak partenaires yeeg ñëpp daal ñi nga xam dañuy tënn au delà de l'éducation même au delà bépp population Sénégal maa ngi leen di ñaanal ñu am wér. asalaamaaleykum man euh, maa ngi nuyu ñëpp di sama message bi fekk ñëpp ci jàmm. di rafetlu bu baax opportunité bii ma Thiaroye Info may pour ma mën présenter mes à l' du peuple sénégalais en général mais en particulier que 2022 soit l'année tant attendue pour tous pleine de santé de prospérité et de réussite dans toutes nos entreprises. Salut, c'est Aboubacar élément Info TV. je vous souhaite de bonnes et heureuses années 2022, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez, que, que les difficultés de cette année vous soient épargnées et que le bonheur de cette année aussi vous soit au rendez-vous. Je vous souhaite Happy New Year. Eh, salam, salam, salam, salam. 对。